salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ngi suivre ci seen sit internet lu tv point com ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziare ki ñu jàkkaarloo nag xam ngeen ko muy Big Pato police mbër couvre-feu saison 2 nag dafa ñëwaat Omar Diop comme ni koy waxee rek dans yëpp coor yi bari na comme ni mu baree woon ñu demee ba gars yi maar may ko mu naan nen dafa naan moom moom il est comme ça waaw waaw na la may amul benn problème may ko mu naan ataaya la. waaye yéen yéen kii yéen yéen yéen moo tax doo naan kafe. doo naan kafe waaye yaa ngi naan ataaya comme ni ma ko waxee Big Pato couvre-feu saison 2 Macky Sall dañoo dafa dafa dafa obligé waat Sénégalais yi pour ñuy tëdd 21 heures coow li nag temps yi bari na ci am na ñu ngi ci jot jàpp plus de Omar Dioma. Ah? de 130 et plus ñu jàpp leen dugal leen ci kaso bi instant bii nii loolu nag laa bëgg ñu waxtaanee ko comme niñ ko waxtaanee woon bee passé ak dóore bi nga xamante ne tamit ñoo ngi ko ciy gis dóore bi ngeen di dóore. loolu ngay bañ a dégg sax mais loolu moo am dañ lay nuyu bàyyi la nga nuyu ñuy suivre Lutte TV point com yëpp ñu waxtaan ak yow waaye waxtaan ak yow tamit ci wurli mi nga xamante tey këram la ñuy defee interview bi ma ngi nuyu di la ziar c'est pato laa xawla wala laa xawla yàlla na ma yàlla musal ci Lamine Lamine yaa ñu lakkal man defe naa liir jaan rek nga lakkal mais yow nekk da bàyyiwoo kenn lamin avant tout maa ngi sant yàlla bu baax di julli seen gërëm sama ñaari waajur Euh, di nuyu sénégalais yëpp ah waa Sénégal ak ah, waa diaspora bi surtout ñoom ñi nga xam ne ndeysaan lii moo leen wétali mais Lamine benn affaire foog ñu comprendre ko saison 1 bi comme ni nga ko wax ñoo ko defandoon maa ngi yow ak dana am incha bi man dama ne woon jaru ko woon sax parce que waxoon nañu war wax yëpp mais barki démb bu ma nekkee police jëppal rek dafa sam kilifa wu dafa ma woo benn kilifa bu kawee ci police commissaire Mamadou Gueye am lu ma wax te xam naa naa ci liggéey ak moom aussi comme niñ koy war a defee chaque jour. xëy na man la yàlla nattu ma nekk koo xam ne maa ngi wàcc ci terrain bi en tant que sportif porteur de voix di wax ak nit ñi mais sénégalais yi aussi nañ ñu jàppale confinement bi du fii rek pendant depuis combien temps ñu ngi leen confiné Italie ñu ngi leen confiné am na lu mu soxla benn dëkk pour mu génn foofu pour nga génn da ngay France ñi fa nekk ñiy génn ñëpp dañ koy justifié Maroc gis nga sa suñu xarit di fa nekk aussi problème bi ñu mais ñun pourquoi ñun à chaque fois. ñun dañuy kaas quoi dogal bu njiitu réew mu jël te ñun en tant que citoyen non non bëgguma sonal léegi dafa am benn affaire boo xam ne foog ñu comprendre ko mooy en tant que citoyen daa ce qu'on appelle de devoir et droit mooy man mbër mi su ma nekkee ci écrit bi bëgg a bëre lan laa war def foog may ñëw entraînement foog ma respecter staff bi foog ma am licence ci mbër écrit bi bokk ci mbër yi nga gars yi gis nañu ñëw bu ma ko deful bu combat taxaw duñ ma taxawal combat écrit bi citoyen bi lan mooy droit am mooy li na xam ne moom la ko réew mi war a jox devoir am mooy li nga xam moom la war a def par rapport ak réew mi sa droit da nga ko war a kaas mais ab euh, mais day fekk nga def see devoir ba pare bu la nee couvre-feu bi lay commencé après activité booy booy wate def na ne war nga jéem a sa kër war nga mën a jéem a sa kër avant vingt mais senegal fii gars yi dernière minute dañuy jël dix-neuf heures moom boo ko jógee sa bureau ñëpp jógandoo dix-neuf heures bëgg a fekkente ci kaw tali bi embouteillage day am. Big Bato Big Bato Big Bato gars yi gars yi dañu gars yi dañuy wàcc di heures man nag gis naa ñoo xamante ne dañuy wàcc 17 heures 20 heures et quelque la ñu egg seen kër léegi imaginer ko koo jege di wàcc di wàcc 17 heures ak 20 20 heures ki jëm Tëngéej wàcc di heures wala ak wala ak 21 heures wala 22 heures parce que tali bi day xat parce que loolu tamit mënu leen ko tolérer. mais heureusement que tey gis nga heureusement que tey dégg nga kilifa yi li ñu wax. def nañu allègement ci administration bi ak yenn services yi que léegi sax jarut sax ñëpp di liggéey ci bureau yi je crois que avantage la bu ko administration defee privé bi aussi def ko bu yàggee solution am. population. comme lu may wax tey mooy ñun nañ jàppale suñu biir jàppalante quoi jàppalante mooy muy population bi ak euh, homme de tenue ku nekk am nga benn rôle boo war a jouer homme de tenue yi li ñu leen doyee mooy ñun civil yi buñ jàqee nekk si njàqare buñ leen gisee suñu xel war a dal. mais population yi aussi li ñu war a def mooy respecter homme de tenue yi moom collaboration te boo déggee ça fait des années on parle du Sénégal concept armée nation ñun police ñu yemuñ ci dañoo dem ba jël suñu élément ne ko demal takk ngeem dootul def def def ko ñoom la ñuy def policier di ñëw di ngembu di kaf di ree pour gën a am lëkkaloo bi parce que boo xoolee ASFA am na mooy sport armée la police am na sport section sport comme ASPO bi ñuy wax gendarmerie. tey naa jox benn secret yu bëri xamul tey Jeux olympiques de la jeunesse bi gars yi Sénégal bu ñu ko gañee Sénégal c' parce que gendarmerie seen équipe seen équipe fas yooyu noonu moo tax ñu gañee ko pour te dire que am na ak civil yi yàgg ma ñëw jël toor bi yëpp di ko def teg civil yi du ma jël toor bi aussi di ko teg policier yi comme ni ma daan defee sax du laa koy defee kenn ku ci ne da xool li nga war a def pour jàmm am nga def ko ne civil yi ay doom doomu Sénégal yi mais boo xoolee ren jii deuxième couvre-feu bi saison bi kaay am na ko xam ne démb man bu ma jugee sama kër doon jël benn yóbbante moo doon jox benn GP doon ko yóbbu ba wàññi na ko sama gars dañ ma ne yóbbaale ñu ne ñu yóbbaale quoi da ngay gis ko yor oto sax am laissez-passer wala nga nekk am détenu nga romb benn check point am ko la ne ak yóbbaaleel kii tel secteur la jëm ça veut dire léegi affaire bi changé na mais civil yi ñooy dimbali alkaati ci liggéey bi te buñ la nee couvre-feu bi lii lay bañ wala à 100 pour cent sax defal effort bi nga xam ne homme de tenue bi jàkkaarloog yow bu la dégloo sax xam ne yow farata moo la bàyyi woon biti mais am na ñoo ne sama genre gi mënoo fexe bañ toog seen kër moom xaloo ci ay classe wulli gii ni ay dóorkat lañu dóorkat yi moom ñooñu sonal quoi wulli day bëgg dem ci Ablaye Diop xaas bëgg dem ci bëgg dem ci Dame Diop Ngor parfois mu bëgg dem ci dam Dame Diop Ngor doo dem ci Dame saa saa mu bëgg dem ci Jamil Samb Mbaye Diop ak daam Diop bu Ngor xam nga ma la wax suñu xarit doomu ndey ja non xaas wax nga dëgg sa waay loon mais léegi. comme mu ne yaa ngi dem ci alal xaas. non dama la jox exemple dama ko si. mais waxatuma sax nga def exemple léegi saa saa wul li bëgg a dem ci ICO bu l'écran saa saa mu bëgg a dem. waaw <laughs> loolu mais mais mais problème bi nekkul nit ñi ñooy génn mais embouteillage mooy téye ni ñi ba vingt et une heure du leen mën a fekk ci seen ci seen kër yi. wax nga ko sànq tey jii tey benn gendarme tolérance bi nit ñi mën a am ci moom mënuñu ko am ci policier dafa mel ni policier yi ak ak bi guerre guerre day seen diggante côté côté police nag laa sax côté gendarme wala beneen. guerre moom am nag xam nga la tax. Euh, dëkkandoo la rek. bañ ak laam ñoo dëkk mais saa saa yu daale. gis nga nag liggéeyu moo tax tolérance bi nit ñi am ci ci ci ci gendarmerie mënuñu ko am ci police. non instant civil ñëpp lañ mere man vidéo yi ma gis nii ñoom instant bàyyiwuñ kenn ñoom bu génnee. ku leen interpellé ñu meral xam nga la moo tax affaire droit ak loi moo ko parce que loi contrainte la parce que l'individu de prime abord dafa bëgg li ñuy wax liberté et quand de loi on parle de la restriction de liberté rek problème parce que nit moo bëggul ku ko xañ liberté parce que liberté mooy contradiction parce que nit boo nee tey doo dem fi doo dem fee rek ngi empiété liberté am mooy liberté d'aller et moom la ñu xañ tey bi à de vingt-huit heures mu ne ñu toog leen te doomu aadama moo bëggul ku ko dogal benn place boo ko bëggul ku naan ko defal li defal lee kon day compliqué léegi li ñu mën rek mooy xool chaque jour ñuy def di équilibre di seet ay solution de gauche à droite boo xoolee départ bi gënoon a parce que gars yi nekkoon aéroport war a ñibbisi man ñu bëri message yaa ngi ñu bëri ñu mel a ñëw wala ñu war a dem aéroport ñu heureusement gis nga bi génn ñu ne ñiy dem voyager seen titre de voyage dañu wane ak seen passeport wane ne billet bi dañuy dem cest président ak te ñëpp xam nañ ko mooy mbas mu jóge fi maa ngi nii war a buli bëri depuis daaw mënumaa bëri kon man je suis concerné waa police na làmb Félix Antoine Félix Diome suñu xarit la maagul li ñun ñëpp namm làmb kon tey du ma la ko nëbb mbas mi ñun ñëpp la laal ministre Matar Ba ministre Matar Ba moo gën a namm làmb. police yi kay gis nga leen ñuy dóore ci ci mbedd yi yow gis nga vidéo bii nii man man kat Lamine gënuma keroog gis naa benn live Dakaractu ñoo ko doon def génn génnoo yow yow boo génnoon sax mën ngaa wax maanaam ba mucc mën ngaa wax ba mucc mais dóor bi ñuy dóor police yi dóor bi ñuy dóor nit ñi est-ce que jaadu boo génnee oh, man ma xam sama bopp moo tax sama anniversaire cinq laa ko def. ban heure jot sax. non balaa gaa naan nañu. onze personnes yëpp. dix personnes 33 moo balaa ñu naan guddi lañ ko def. xoolal heure bu baax. 17 heures def anniversaire bi te samay nit que. aussi li booy Abrahima waxoon ca 19h45 ñun lañ ko lañ anniversaire ca nag doore bi aussi baaxul. Hmm. ba leen doore. waaw jërëjëf rek. yàlla rek a war a door nag. door baaxul loolu maa ngi yow bi ñu bi ñu duggee waaw man moom mën naa laa door bokkul door a gamante mais aussi aussi Lamine. ku fo bii ba dëggu si yàlla Macky Sall moom man ba dëggu si yàlla lu mu mës a def d'accord naa ci lu mu mës a def ànd naa ci. waaw mais bii ma wax dëgg d'accord ma ci. waaw parce que vraiment ak fi toll nii tey bi ñu demee bu amee trois cas deux cas boobu amul. ñu ngi nii ba ñu commencé couvre-feu léegi ay cent cas ay deux mbooloo mi ñu doon ba bañ mooy am. bi midi bu ngoon foo forum day xet rassemblement bi ci yi oto yi maanaam loolu mbooloo mi ñu doon bañ moom lañu la ñu créé. comprends nga. bu bëgg a seetloo depuis le fa ba léegi kaay ni mu yokkoo op na. kon Macky Sall man bu fëgg def conseil am laa dëggantaan te koy wax mu dëgg couvre-feu bi na ko dindi ñu xool yeneen mesure na gaa yi takk masque yi na gaa yi def distance na gaa yi parce que tey Lamine moo ne na gaa yi toog bu pare kaar boo dugg day man man dama dugg kaar parce que amu oto ba ba bokk ma ak yow. Eh, mais Karambooj nag war na laa jox oto. waaw Karambooj moom maa ko am nga oto. Kara. Ah, bii amuloo oto. oto bi wulli moo ci yéeg ba oto bi ndox nor. Kara eh, ñu ngi nuyu waa Kara ak waa Mbour yëpp ak Ablaye Mbodj grand frère Kara non Kara nag dama la benn secret. man daal big pato jaaxal na ma nag wax dëgg si may nag waaw big pato mi kay la may bay yow nga ànd ak sa Salif Diaw mu xewi. non Salif kay lépp moom yàlla ñu boole. Ah, ah. Salif Diaw mu xewi ak. damay xam Kara xaw ma ak Salif. yow bi ne maag Sadio man maag Kara Mbodj ñoo ànd. nit nag baal. baal non kara dañoo bokk suñu nguur bar ngalale ñaare bi dañ ko bon dëgg ba ñaare bi moom dañoo seq loo xam ne ma wax fekk na ma taay grand théâtre ma accueillir ko moo ay Baye Fall fekk mili ba taay ñu ànd dama la man waa mbuur la ñoo bokk suñu mbuur damaa gore rek bàyyi laa kara mais xam nga ne kara moom chéri faa moom saa yi mënoo ma cee xañ léegi bay nga maag moom moo gën bay maag moom dama la kon na la wutal oto waa dëggu si yàlla may lancer appel euh, Lamine damay lancer appel bu am solo kara mbooj nit bu da sagal nit bu lay safoo da koy sagal ku ma gis ñu ne wulli non non non non dama dama damay wax dëgg ku ma xam ne wuli doom de karamooj te nit sa waay da nga ko war a sagoo di ko tiitaroo. dafa waaye da ngay déglu de daa bari wax nag. yow laay jàppale dama la. waaw ak Pape Kouli Diop na Sadio war nañoo parce que ñun dañoo gore si ñoom te nit bu ànd ak yow comme ni nga wax rek di la sagoo. dañ koy sagoo. Cheikhou Kouyaté dem naa ak Sadio Mané nañ ñu dégg. wax dëgg si la Kara Mbodj moom wax la nga baal ma tëppu ko xaalis tëppu ma ko dara mais nit bu lay sagal da nga koy sagoo pour mu dina ma oto du dara ci moom comprends nga tey man parce que tey bu loolu yow sax dina dina yaakaar Kara Mbodj jox. wax ah, xam nga man nag ñaanu ma ko dama ko bëgg te tax yaayam bëgg ma ay magam yëpp bëgg ma mais dama ko ne nit laa wax bu lay. sagoo dem ko sagal boo ko bu yàlla dogalee ga tànne ko man su may ànd ak yow tànne la dama lay dimbali. Basiru Ka. dinañ ci ñëw loolu dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw léegi wala li ma bëgg ñu wax ci. zoo technique baa bu Ndiaye. ñoom ñëpp dinañ ci ñëw incha allah dinañ ci ñëw après ci integral bi. ko dañuy dañuy jeexal mais ba léegi rek dañuy wax ci actualité muy couvre-feu bi. couvre-feu damaa bëgg ñu wax ci ki jàpp nu mu tuddati sax sa copain bi 10 000 problème arrestation noo gis. noo wax dëggu si yàlla 10 000 moom dafa bëri problème nag. mais 10 000 problème di patriote di teewal Sénégal di xeexal askan bi. Eh, yoo lay yëpp lay xeexal yow sax mi ngi lay xeexal. moom wax dëggu si yàlla. dafa bëgg ñëpp am liberté. liberté non man man ba ma déggee maanaam damay tuxu yàmbaa. ne ko suur boobu. non mais 10 000 dox dafa bëri problème dafa bëri problème kaay nag man nag man nag wax dugg si yàlla Lamine man. patriote la de. non Ouzin Keita xoolal Pawlish Mbaye. xoolal Big Pato ñooñu dañoo ak di. non mais nit kaay. ngaa ka berend rapport yi ak rapport bi xew bi. ak keneen ki dib ay dib dib ay sampose mosoo gis kenn taxaw di sàgg état taxaw di sàgg état ne. ak wit non non rapport dëggantaan. mais rapport dëggantaan da nga war a taxaw taxawaayu député. ay non mais pas saaga. waaw ah, saaga moom baaxul. taxaw di saaga moo géej xëy ànd ak moo géej kon ma ak Petit Seye ñoo yem ni ma dégg aussi Lamine dégg bi dëggantaan. Ah, wala eh, xanaa da ngaa ànd ci arrestation bi. non bëgguma nu nu jàpp kenn jamay kee wax na ko keroog même le ministre de sport gis naa mu recevoir ko. loolu moom a rusloo nag. man d'accorduma Matar Ba sama papa la man mii sax. fu ma toog ne maa ngi koy gërëm mosuma recevoir di recevoir ay diggante problème ndax télé bi mu toog tudd ko nit référence dafa solo ngaa ko bële ne est que mu ngi nii woy dama rëy rëy xaw ma lan yàlla yàlla ma yàlla baal. waaw ñëpp na ma yàlla baal. waaw loolu neex na mais moom itam bu bëree ñëpp. kon mu dëkk bi doo dootul neex di. waaw loolu day nu war de. waaw bu ak. King Baba King Baba moom <laughs> nag su dee ñëpp lañ jëm. yàlla da koy ba. ah bu ko yàlla yàlla mën ko ba loolu su dee ñëpp loolu dafa bari. na na day kenn bokk. 17 millions de personnes la bëgg a. yow. <laughs> ku ma lay rëbb. sa bopp bi tuut est-ce que du ray liiru. Hmm, na leen yu jaar daa bari wax. bilaay bu bilaay dara du ko ci fekk. dara du ko ci fekk bu bëree yu jaar. dara. yaa changé waay léegi nan la ko war a waay. Eh, damay rek li li li jaan na ma yàlla baal da nga def baal bilaay <laughs> du garaaw li jaan moom ku ko rey yàlla baal. Ah. waaw nattu rek liir moom nattu moom nattu loolu liir moom comme ni ko wulli waxee rek bu waajee rayoon wulli rayoon liiru jaan daal di. <laughs> liir tamit wulli tamit liir am na njaboot. waa ji. moo mag. bu rayee liiru jaan après na jël kii Alaaji Mbay yàq faar gi déglu ma rek bu mu ko rey yow nga bu war a rek moom bëgg ñu rey ko saa ñi ma woo ko dama yàqal faar gi ba nga xam su ma ko dóoree du am kattan gu mu nooyee nga ma kaaw yow Ouzin Keita nag daf mel ni ñi woo ko non Ouzin <laughs> ñi ma naa ko sama non lii la moo ko ragal parce que keroog gis naa bi ma mujjee wax ak liiru yàlla yàlla dafa tiit bi ne da ngeen di jaar ci moom pour am tur non moom ma jaar ci pour am tur mais dama dina wàcc ku fa bi lu am solo barke Seydina Mohamed ak fii réew mi toll banlieue bi nga xam ne ñu bëree bari lamin guddi la ñuy wuti dépense nga bëgg leen nag te neuf ba set te doon jox dépense. te yow mi yoon te am nga dépense ak say mbokk président na sóoraale aussi ñu néew doole barke Mouhamed ku ku ku fa bi am na ci ñu ñu miti lool barke Mouhamed. parce que boo xëyee boo xëyee mënoo dox dara parce que dëkk dafa xat. barke sëñ ba kuufa bi yàqar na ñu bari Macky Sall nag bu dee njiit la moom bu mu xool am amam na xool ñu jiite ñu ñu néew doole Sénégal du France. parce que jeunesse bi ñoo utal seen bopp liggéey état bi utalul leen liggéey. de ba lu xew France xew Sénégal bokkunu de Lamine nañu wax dëgg France mën nañoo toog deux mois confinement total ñu bëri ñëpp ay milliardaires lañu. France ak Sénégal bokkul Sénégal pays pauvre la comprends nga feebar bi yàllaa ko fi andi mais Macky Sall war naa gën a parce que fii mu toll couvre-feu boo xoolee couvre-feu mooy toog sa kër bañ a liggéey. pression pression man mi sax sama amee sa pression laanu de demee barke Mouhamed bu may gën aw ma oto damay luy oto chaque jour vingt cinq mille xool loolu te bu njëkk bu a ne du couvre damay xëy du ci taxi parce que dix mille francs paas mais couvre bi damay xëy fab sama oto bon oto fay ko vingt cinq pour mu ànd ak man parce dana bañ ñu door ma kon Macky Sall lii moom man lii fukki fan ak ñaar la ñu wax bu ci yokk seconde non kon Mouhamed coronavirus bi Sénégal gépp maa ngi nii anniversaire takk ay masque respecté na Sénégal gépp respecté distance sociale bi mais lii teewul couvre fo teewul kaay am na ko dindi ci ni mu gën a gaawe aussi Antoine Diome xale la am na Diome mais aussi nañ koy ñaan mu dawal ma parce que ba daay wal Sénégal réew mi yërmande lamit yàlla suñu borom daa ak am doole boo xoolee bi ne couvre-feu ba tey kaay yokku day yokku boobu rek la waroon na dindi décret bi. parce dëkk bi moom miti Lamine dëkk bi dafa dafa miti barke Mouhamed. Mm-hmm. waaw waaw par rapport moom dama parce que effectivement comme ni ko wuli waxee ñun ay doomu baadoo la xam nañu ci souffrance. parce que ñun suñu yaay danaan jaay marché ba ngoon ñu doog a ñëw indi taale wala ñu dem jaay ba ngoon ñu indi kii. boo demee dëkk bu mel ni Mbour gaa yu bëri heure tàkkusaan tàkkusaan jëm timis dañuy am xaalis bu gaali teeree ñu mën a jël ci jënd jaay bu ñu jaayee ba pare jël seen bénéfice jënd ci cere ak seen njéer ak yooyu dem jox seen njaboot utaale dépense suba parfois sax dépense jour boobu ci lañ koy kii kon tey effectivement France contexte ak fii bokkul France boo fa demee tey gars yi am nañu ay compte gars yi am nañu yenn possibilité am na yenn xaalis fii gaa yi amuñu ay compte bancaire fii gars yi dencuñu ay ngafaka au jour le jour la ñuy dund la plupart population bi bu ñu waxante dëgg quoi mooy que tey am na ku ñuy wax action sociale ñi ko yor wala ñi koy ñaan tey mu sóoraale que ne sénégalais bi nekk ci dëkk bi tey dépense am heure timis la koy lijjanti. parce que port am na ñoo xam ne heure boobu la jaay seen firi pour am bénéfice benn jour am na benn jour ñuy def émission ki doon jooyloo ñëpp te jooyloo ma man mooy maire bi ñu fekkoon ci rond bi. man moom moom moom day jooy. wallaay Aziz li may wax ni sàmm. kii gaaw naa jooy nag. dama ko dund parce que du ma lay li may wax ni sàmm ci ak parce que ñun ay sénégalais lañ non non du parce que émotion la couvre bi bi Lamine man xam nga yow ñaata message laa jot. Sénégal Sénégal. président baa ngi jooy. sa xol lay jugee non booy wax li nga xam ne dafa dafa jugee ci sa xol. doo mën a téye sa bopp si tu par l' émotion c' normal man loolu dama ko dund am na fi ay kilifa yoo xam ne tey ay milliardaires lañ ils ont vécu dans la souffrance mais c' est pas parce que aujourd'hui yàlla moo ñu dimbali comme li Pawlish naa nag ku ku ñàkkoon tekki na wala ku ñàkkoon am na boo jaaree ci ñàkk tey ba yàlla dimbali nga tekki bul ingrat bul égoïste il faut passer aux tey am na ñoo xam ne Lamine heure boobu la ñuy la ñuy lijjanti seen dépense comme na fa waxee baax am saako ceeb seen kër amuñ gaz amuñ matt amuñ këriñ koy jënd ci ci mbedd bi dafa metti tey ñooñu tey boo leen di tëj wala ngeen tëj am na contexte boo xam ne ni ne ce fait que ñun ñun ñi tey duñ ay ministre mais ministre Matar Ba comme ni ko wulee ñun dañ koy defaan presque bi ñu mujjee gisante ci station lañ gis ak yeneen bërëb wala manifestation yu gisante ñu waxante ñaari kàddu ñett mais ñun lu ñu man mooy jox leen ay idées yu nga xam ne ñoom xëy bu ñu ko exploité nañ jàppale population bi ñoom xëy amuñ temps nekk comme ñun ni ñu amee chance di fréquenter population ba peuple bi ñun ñuy fréquenter ba peuple ñoo leen mën a wax lu xew Sénégalais dañoo sonn de Lamine. Mm-hmm. ñun mbëri direct ñu sonnuñ de mais y a des gens yi nga xam seen dépense heure bi ñu koy lijjanti dafa metti tey kenn newul président du jël dogal kenn newul policier duñ génn respecté fenn ndax nañu ren mais nan ñu jiite yéen ñëpp yilif ñu tamit te xam ne sénégalais la yilif nañu jàppale teg teg ñu si condition yoo xam ne même bu couvre-feu bi ñëwee sax du metti si ñun daal. ñu xool nuñ koy defaree daal ba kenn ku nekk bañ a metti parce que tamit boo nee couvre-feu waa daw dépense yenn heures yi nga xañ ko ko heure boobu te tuloo ko benn alternative aussi day metti mhm. ñun xam nga tey yàlla may nañu du yàgg bañ sànni xeer état du yàgg bañ tequinse duñ sànni xeer peuple bi aussi luñ man mooy chaque jour rek ñu ma jaaxal mooy nag ñi nga xam ne ñoo ma diggoon oto sama bi dafa sonn màgg na comme kalandoo fi mu toll nii non kii la damay def ni yow rek. damay jox temps wala ngay door. damay jox daan baal ma def ni ngay def rek parce que tamit gars yi mënuñ fay nekk tamit ñu leen di waxal leen defaan ñuy jël oto yi di ko ay Pawlish di may ay yeneen gars oto te ñun àggul li Pawlish barki démb dafa jógee monsieur. alaaji mbay moo gét 5 millions la ko moo gét di ma gis ak duur te moo gét ba pare bëgg ma bëre kaw gama moo gét aussi nañu geesu maag wulli. dara geesu rek ma. yàlla mooy tamit oto bi yàlla ma non sonn naa ko mais xam nga. kon da nga ko non koy laaj wala nga ne ko soxla. man ko wala man laaj du ma laaj moo gét mais su ma joxee ma jël de. nga laaj ko. na ma jox rek ma jël. ñaata million. non moom. moom ma doom ndey la. oui ba suñu doom rek moom may woo. moo daal bu ma joxe ma jël. ñun daal ñaanuñ kenn ñaanuñ kenn waaye ko nu jox nag ñuy jël teraanga Basirou Ka aussi suñu doomu ndey Basirou Ka nee woon mi ngi ñëw. Basirou Ka suñ suñ doomu ndey vraiment ñu koy féliciter parce que gis naa li muy defal gars di wax ni gars yi bëgg aussi nañ dem ci Basirou mu jox lañ ci terrain yi loolu defe naa am na solo parce que kër moom baax na ci lii lii kay du matt mais vilebrequin daa nga vilebrequin moom day bënn ah, léegi Lamine fi ñu tàggatoo mooy comme ni ñu ko defee chaque jour kaf nañ ree nañ

leen waaye comme chaque jour nañu gari bi ñun chaque jour bu ñu génn rek farata moo tax ñu génn wax dara leen jox rendez-vous ci saison 2 bi cour fa bi incha allah bi ñu ngi ci travail technique bi di jéem a préparer bagage incha allah rabbi feex